alhamdulillahi alkarimi fil minan ala fiqaali bi forojin wa sunan alhamdulillahi alkarimi fil minan ala fiqaali bi forojin wa sunan شكرت لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما عاقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بدخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم صلاة بسلام تبعا على الذي قد أن أتبعا على الذي من بمرادي اقتدى في السر والجريب يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فساد دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير ولا شفيع وآله وسابه النجوم القائل النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وأن تكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قد زدت لما لم أجد سرواك فجرتني اليوم بغير منني وقدني إلى اقتفاء سنني من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في سلك قناس وكج للأمداح والإقراء أزهد بالتأليف والإقراء وبالتعلم jabotuk soxna May gi yëpp ci njiitu sëriñ Abdou sëriñ Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma ñun ñëpp ñu maase ko teewlu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokki jullit yi taalibey murit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ci weeru màgg wi di saxaru ramadanul mubaarak euh, ñu ñëw tey nag ci bis bi nga xam ne bisub jullit yépp la rawatina képp ku bokk ci yoonu murit di bisub xaadimu rasuul yàlla jaglee la ko suñu wayjuru tedd wa ci soxna Maymunatu Mbàkke bintil Xadim mu taxawal bis bii ci ndigalul ay kilifaam ñi mu bokkaloon Serigne Touba daan ko ànd ak ñoom waxtu wu nekk ba fépp fu ñu tuddee laylatul xadri fu mu doon ci àdduna bi ñëpp xelam dem ci soxna Maymunatu Mbàkke ndax ku ne xam na ne taxaw na ci taxawaay bu rafet bu ràññiku ba ñépp jagleel ko ko bis nag bis nag mënu koo gën a rëy ndax bis boo xam ne ci biir saxaru ramadaanal mubaarak ci li suñu borom wàcce alquranul karim kon kooku mënta yem ak benn bis yàlla jagleel ko ko nag mu wuutu ci mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi daan ko taxawal ci anam yu yàgg a yàgg te lépp pësteef ak bëgg sëriñ Tuubaa laltaay ko mu daan ko ci taxawal itam ci ni nga xam ne noonu la ko xaadim rasul bëggee woon daan ko ni taxawee yàlla jagleel ko muy cëram ndax lu baree bari dafa mat di xàmmee ñu baax ñëpp ku ci ne am nga lu la suñu borom di cërale moom nag suñu borom cërale ko bis bi mu daan ko taxawal ci wàllu ni ko jullit yëpp war a taxawe wuutu ci nag xaadimu rasul ak njabootam ñëpp it nangul ko ko nag mu daan ci liggéey liggéey bu rëy di ko liggéeyal diine ji di ci liggéeyal alquran lépp lu mu masaan jële ci ay toolam ci aw ñaqam bis bii la koy jagleel delloo ko ci jàngkati alxuraan yi ak fu ñu mën a nekk ci réew mi loolu kon amul woon benn soxla bu dul bii daada da wax ne moom bu fi jógee bu ko kenn wutal benn bis bu dul bis bi kon loolu tax na ñii nga xam ne ñooy suñu njaboot itam wutuñu fi tàmbulee ko ci sëriñ Mouhamadul Mahfous di suñu mag di suñu xalif ah, di ko taxawee àndoon ko ak magam ju baax ja soxna Bali yal na yàlla yokk yërmandeem te teg loxoom ci njaboot gi mu fi bàyyi Eh, sëriñ Cheikh du mii nag di suñu jëwriñ ñun ñëpp maak sëriñ Mouhamadou Mahfous ak bokk yi yëpp dox ci suñu digg ak coono yu bari nag di ko taxawee waxtu wu nekk ci guddi ak bëccëg ànd ko ak njaboot gi nga xam ne ñoo di ay rakkam ñu topp ci gannaawam loolu kon dañuy ñaan yàlla taxawaay boobu yàgg lool ndax kat bu ñu ci noppaloo ah, ñoom ñii ñoo dox suñu digg ak loola ne bu dul woon loolu kon ku ñëw guddeeg bëccëg ci loolu nga ñuy fekk ndax kenn deful lu ëpp topp ndigalul sa wayjur rawatina wayjur wala boole ci sëriñ Touba te xam nañ ne ku ko ci defit sa njariñ rek lay doon waaye ñoom la ñuy am suñ borom defal na leen ko ba noppi euh, kon nag nun degam fa gënoon a metti ñoom ñoo ci jiitu nun li ñu fi dese rek mooy fexe ba liggéey bi ñu fi bàyyi ñu fexe ba poussière bañ cee taq ñu di ko fomp ak di ko taxawee kon nag moom mii nga xam ne mooy jiitu di jëwriñu kër gi ci loolu ñu ngi koy ñaanal suñu borom tabaaraka wa taala sàmm ko te aar ko te yiir ko mbalaanum sutura te yokk ay xéwalam ba mu yàgg a taxawe bis bii ndax bu ko defee rek nun ñëpp la ko defal te xam nañ ne waxtu wu nekk loolu rek mooy itteem mooy bëgg-bëggam te soxna si it ku ne xam na ne fa mu nekk tey xolam sedd na guy moom mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi te loola rek mooy li ñuy jariñ kon yal na la ci yàlla jàppale te kàttanal la loo ci def bu déwénee nga gën koo man suñu borom bàyyi leen fi bu baax a baax a baax ngeen yàgg a taxawee lii noonu suñu xel dal na suñu xol sedd na waaw ndax bu ngeen doxee ni ngeen war a doxee rek suñu xel day sedd suñu suñu xel day dal te xam nañ ne yéen a ngi ci loolu ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu wasilati ilayka fi nayni salaax wasalliyan wasalliman alayhi wa kulli man qad intama ilayhi واغفر جنابي وتقبل عملي ولياب خير منى وأملي يا من على عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي وكفني من التقم حتى أكون سالك الخير لقم يا عدل يا مدل يا من يؤمن أنت مجير يونا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من علا عن زوجة وعن ولد عدني أوعد جميع أهلي ذا البلد يا من علا عن زوجة وعن ولد عدني وعد جميع أهلي ذا البلد wajal ilaahi maskani tuuba abad misat mia bi jaay xayri man abad wajal ilaahi maskani tuuba abad misat mia bi jaay xayri man abad wasalliyan alayhi afdal salaat wa aalihi wa sahbihi dawi silaat wa kullu man qadamani aw zaara فنجه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فدقودا ومالا وكل من زدمني أو لاما فهب له التوبة والاستسلاما وكل من أذى أذنه بها فليقلم قلبه يا ربي ودفني أذى جميع العالمين ودفهم أذايا يا ربي أمين وجنبنا يبنا عافية يجرني إلى خيور تافية وجلبنا يبنا عني وعمل بسنة وحلمين وجلبنا يبنا الاهتداء